mbokk internet yi nuyu na leen ne leen daal leen jàmm ci layru bi l'international ginnaaw xibaar bi nga xamante moom lañ leen yekkoon sànq léegi nii rek te mu ñeel rejet bi nga xamante ne euh, chambre administrative bu cour suprême bi nga xamante ne moom la avocat président Ousmane Sonko yi déposé woon foofee te mu ñeel li nga xamante moom moo di fiche parrainage am na beneen xibaar bu bees bi nga xamante ne waddu na sànq léegi nii rek muy euh, fësal ne ki nga xamante moom moo di président de la république euh, Macky gouvernement bi nga xamante ne euh, premier ministre Amadou Ba jiite na ko waaye tamit ci moomu communiqué boobu noonu ñu ngi liir nekk ki nga xamante ne moom moo di président de la république Macky Sall dina beneen gouvernement bu bees ci fan yu néew te ki nga xamante ne moom moo di Amadou Ba moo ko nar a jiite ñuy xaarandi ba xam ndax tey li nga xamante ne moom la ñu bind ci communiqué bi dinañ ko dëggal maanaam président de la république Macky dina euh, tab beneen gouvernement bu bees te ki nga xamante ne moom moo di Amadou Ba nar kaa jiite. ndaxte bu dee ba léegi Amadou Ba moom moo nekk ki nga xamante moom moo di premier ministre bu Sénégal ba sànq euh, bi président République euh, di euh, tas li nga xamante ne moom moo di gouvernement bi am na nit ñu nga xamante ne ay kàngam lañu ci li nga xamante ne moom moo di coalition Benno Bokk Yaakaar ñuy sàkku pour ci ki nga xamante moom moo di président de République mu daal di wàccee ki nga xamante ne moom moo di Amadou Ba ci post premier ministre ginnaaw bu mu ko tabee pour mu jiite li nga xamante moom moo di Euh, coalition Benno Bokk Yaakaar ci jongante élection présidentielle bu février 2024 ndaxte ñu bëri ñu ngi wax euh, wax ne li nga xamante ne moom moo di euh, charge bi nga xamante ne moom moo di moom la Amadou Ba yennoo jamono jii nii mënu kaa boole ak li nga xamante ne moom moo di charge premier ministre loolu waral nag ñuy ñaan wala ñuy ñuy wax ne président de la République Macky Sall dafa war a jëlee ki nga xamante ne moom moo di Amadou Ba ci post premier ministre pour mu daal di koy soulager wu tuuti maanaam

pour yenn bi nga xamante ne moom la ko yenn mu doon li nga xamante ne moom moo di candidat Benno Bokk Yaakaar ci jongante élection présidentielle bu février mun a oyof ci moom waaye tamit mu mun kaa may euh, li nga xamante moom moo di doole wala li nga xamante moom moo di temps pour mu mun a dem def li nga xamante moom moo di campagne ñuy xaarandi nag euh, ñan ñoo fas doon ministre yu bees yi nga xamante euh, président de République Macky Sall leen tabb ñu doon peut ministre yi nga xamante nguuram parce que moom euh, président de la république Macky Sall xamal na ne du bokk ci jongante élection présidentielle bu février euh, deux mille vingt quatre na ko daal di organiser euh, moom moo di bu fekkee ne loolu mooy doon gouvernement bu bu mujj bi nga xamante moom moo président de la république dina ko former fii ak bu muy jóge ci bopp li nga xamante moom moo di di bopp réew mi ñuy xarandi tamit ndaxte moom président de la république dina jëfee li nga xamante ne euh, ñenn ci kàngam yi nekkee ci coalition benn Bokk Yaakaar ñu ngi koy euh, ñaan maanaam mu daal di euh, wàccee ki nga xamante ne moom moo di premier ministre Amadou Ba ci poste premier ministre bi mu daal di ci tabb keneen pour mu jiite li nga xamante ne moom moo di gouvernement bu bees bi nga xamante ne moom président de la république dina ko tabb ci ay fan yu néew comme ni ñu ko xamale ci communiqué bi nga xamante ne jot nañ ko sànq léegi nii ci euh, xibaar mu ñel li nga xamante ne moom moo di Euh, dogal bi nga xamante ne moom président de la république Macky Sall jël na ko daal di tas li nga xamante ne moom moo di nguur bi nga xamante ne euh, moom premier ministre Amadou Ba jiite na ko bu fekkee ne mun na doon mbetteel ci ñenn ci ministres yi euh, ñeneen ñi moom du doon mbetteel ci ñoom parce que ay fan yu ay fan yu néew wala ci ay fan yu ginnaaw am na ñu bëri ñu nga xamante ne ñu ngi doon rumandaat ne moom président de la république mu doon waajal li nga xamante ne moom moo di remaniement ministériel ñuy xaar nag comme ni ma ko waxoon sànq léegi nii rek ana ñan ñëw fas yéene doon ñi nga xamante ne ñoom ñooy am sens ngir euh, bokk ci li nga xamante ne moom moo di euh, gouvernement bu bees bi nga xamante ne président de la république Macky dina ko former peut-être mu doon mu euh, gouvernement bu mujj bi nga xamante ne moom lay former fii ak ba muy jóge ci kaw bokk réew mi.